élection palug njiitu réew yi ci Sénégal ni mu tàmbalee daanaka bu ba léegi ñu daal koy ràññeeku ci dëkk bu sell bi di Touba institut Al Azhar bu ay bureau de vote yoo xam ne bëri na ñoo xam ne ña nga fay wotee wot ba tàmbaliwul bi juróom-ñetti waxtu jotee ak yeexte lañu ci nemmee gannaaw loolee ñoo di takk der yi ak ñi nga xam ne nag ñooy toppatoo lépp loo xam ne jëm na ci wàllu vote bi matériel électoral bi daal di nekk en place ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci dëkk bu sell bi di Touba tàmbali di mottali seen devoir citoyen waaye nag gannaaw loolee li nga xam ne nag nemmeeku nañ ci muy bëri na ñoo xam ne dañoo ñëw ci bureau de vote yi ngir mottali seen devoir boobee waaye ay jafe-jafe lañ ci nemmeeku sëriñ bi moom di kenn ci ñoom gannaaw ba mu ñëwee ngir vote ñu daal di koy xamal ne turam nekkul ci fichier électoral bi mu nekk jafe yoo xam ne mi ngi koy naqar lu baax. ma ñëw ci institut Al Azhar pour voter ba ñëw bureau numéro 15 ñu xool bi ne ma sama tur nekku fi ma laajte lu waral lool ñu ne ma mënoo voter loolu nag dafa métti dama trop tellement ñëw pour remplir sama mission. waaw pour la sama njiitu réew donc su ma ñëwee bañ na mënoo voté affaire bi métti na ma trop trop trop trop. mu mel ni nag du moom dong ndaxte am na ñeneen ñoo xam ne yeneen i jafe-jafe la ñuy jànkonteel soxna si ak ki nga xam ne moom la àndal jamono ji itam jafe-jafe bu ni mel moom la ñuy jànkonteel tey nag daanaka lu ëpp ay fukki fukki nit yoo xam ne jafe-jafe boobu ñu ngi koy jànkonteel ci élection yi. waa effectivement fii ci centre Darou Marnane Al Hadar daf ci am ay euh, quelques électeurs yoo xam bi ñu ñëwee. nga xam ni ci bureau yi daan voté seen carte d'identité moo ci nekk comme ku mel ne que mën naa jël euh, femme bi tudd mi ngi nii taxaw si. ko changé sans pour autant kenn notifié wu ko amul benn notification. loolu yoon waaw. ah ne sais pas en tout cas moom benn constat la bu ma def. benn constat j'étais venu rek pour voter. waaw bokkuma benn parti politique. ak lu mën a xew vote bi mi ngi wéy waaye askan wi tamit di wéy di am ay jafe-jafe ci seen vote bi.